gaawal waay tirage nañ leen bu yàgg gaawal tirage nañ leen Lamine ko xasaw na waay Saalé ngi noonu ak Ameth Ndour borom Koumbal ndeysaan maam xaali Sarr borom campement Ngekoox borom équipe bu Papa lay Pythagore maa ngi lay maa ngi ñaanal man di jaay ji ndeysaan séeri bébé Aïssa baay mama Aïssa Mouhamed yàlla génne ko fa nekk balaa yàgg ee eh, Petit Sélal Paw Jonde xale bu campement Ngekoox noonu rakk si Sélémélé ee eh, eh. mu ngi noonu moom Petit